waa réew mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di leen ñaan ngeen like live bi te ko da ci am solo ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ci seen taxawaay seen détermination seen bëgg réew mi seen taxaw temm ne incha allahu rabbi bu dee xeexay tax dëgg ñëw ci réew mi dëgg dina fi ñëw bu dee xeexay tax alalu réew mi ñu delloo ko ci waa réew mi incha allahu rabbi dina am bu dee xeexay tax budget bi ñuy woot voté Sénégal ensemble ni mooy budget année bi génn ci lu jëm ci environnement génn ci lu jëm ci santé ak yeneen ak yeneen secteurs yi ko aajowoo yépp tey ñu ni pour askan wi la pour réew mi la tey ñu koy jël di ko sàcc bu dee xeexay tax ñu bàyyi sàcc googu bu dee xeexay tax ñu respecté réew mi incha allahu rabbi dinan respecter réew mi di wax gaay yi gën leen a yokk seen taxawaay gën a yokk seen détermination keroog ba ñuy libéré détenu politique ya ci jour balaa de sama gaay yi live baa ngi dafa tàmbali rek nag di jàpp leen ci bu dul lool du àgg waaw bu ngeen ci jàppul du àgg de yàlla xam na ko ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ma ni leen keroog bi nga xamee ne tàmbali nañ libéré détenu politique yi man leen dem leen wëri ñoom Abdou Karim Gueye ñoom nit dof ngeen fàq seeni yari daqaar yu baax a baax a baax demee parce que ñoom lan doon xeex di ko dénoncé tey ban jël leen dugal leen ci kaso bi bin génnee ci biti dañ ko fa fekk mu gën ni fa xuus lu naan la ay di njàmbat te Macky Sall ku yaakaar ni dellu na ginnaaw yaa ngi nax sa bopp wala yow xamoo Macky Sall lan la bëgg yàgg nañ leen ko wax Macky Sall du nitu jàmm Macky Sall du nitu dialogue tey gis ngeen tirbinal bee tey na mu mel fees dell ngir Maître Ngagne Demba Touré ak ay mbokkam yu taxaw tey bu doon Macky Sall jàmm la bëgg tey image yooyu tey kenn du ci teg bët ay caaxaan baaxul bàyyi leen naxante naxante baaxul ay naxante baaxul bu doon Macky Sall jàmm la bëgg détenu politique yi ban tàmbalee du arrêté bàyyi bi te te te yi jeexul du fi jàppaat kenn ñi naan jàmm jàmm jàmm jàmm yooyu yépp dañuy wax lu leen neex rek ay ndeena njaay ma génn ak ñu naan sol na robb avocat mag mu ngay taxawu maître Ngagne dembatu rek ak yéen da ngeen a nekk nit yoo xam ne dafa mel ni seen bopp yi ndox nekku ci Ndeena Njaay moo fi taxawoon ne ab me dañ koo rey def fi wax fi wax joo xam ne yaakaaroon na ni kii ci àddunaam du masa dem ànd ak waa Bennoo Bokk Yaakaar gis ngeen ko tey dafa dem ba gis ni tey Bennoo Bokk Yaakaar googo tey mu doon duufale gafakaam tey nërmeelu na APR nërmeelu na tey nguurug Macky Sall nërmeelu moo tax mu wër di ut fu mu jafandu ku yaakaar ne day jàpp euh, euh, euh, jàppale doomu ndeyam Macky Sall jàppalewul doomu ndeyam Macky Sall de bu doon day jàppale doomu ndeyam Macky Sall du wër ci plateau yi di wax ba ku ne nag ku ne naan Ndeena Ndiaye lan la joteeg Macky Sall déedéet bu buggee gis Macky Sall fi muy jaar ba gis ko xam na ko xamante nan ñoom ñaar bu baax université la woon ay caaxaan baaxul ay tappale baaxul discours Macky Sall bii nag mu fas def képp ko pare pour déglu ko na nga ko dégloo ci mbedd mi ta na nga too na nga yor ngandu yet ci sawet bu waxee loo xam ne arrangé wul réew mi arrangé wu leen ngeen wàcc ci mbedd mi defante ko moom ba mu saf sap bu leen ci xaar suba ñëpp ngi naan suba la 23 vendredi la 23 nangam ak nanga mag yu kenn xamul ah nan ko tàmbali tey le 22 bi jëm ak moom la 23 loolu moom mooy dëgg Macky Sall du nitu jolot Macky Sall du nitu jàmm. ku yaakaar ne nag dafa fas yéenee dellu ginnaaw yaa ngi nax sa bopp ab xeex la fas yéenee sooboog yéen lu mu am jël njuuj njaaj la fas sooboog yéen lu mu am jël kon nag da ngeen di préparer seen bopp Cheikh Omar Diagne ndeysaan ñu koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal moom ku xam Macky la Macky Sall du nitu dialogue Macky Sall du nit ab dof la ab dof la Macky Sall lu ngeen wax nan ko fii ba tàyyi lu ngeen ni du ko wax dana ko wax lu ngeen ni du ko def dana ko def lu ngeen ni du ko wax rek aw fitam àggu fa aw fitam paase na pour mu wax ko lu ngeen ni du ko def aw fitam paase na pour mu def ko yenn fit yi nag am ndof la ndof loolu moo dal Macky Sall lu toll ni am réew tey ñi jox la ko mel ni kër gi yow say doomi baay nga fa nekkal di sa taawu baay boo xam ne yow sa doomi baay yëpp dañoo jébbalu ci yow loo def noonu la Macky Sall réew mi du noonu réew mi du noonu réew mi du noonu ni nga jàppee réew mi mooy comme sunu tarixa yi bi wax rek ñépp ca lañ euh, doxewul noonu de réew mi du noonu bul jàppee noonu réew mi sénégalais yi am leen fulla am leen fayda yokku leen seen taxawaay yokk seen détermination taxaw temm te Macky Sall ngeen bañ koo yombalal lii mu bëgg lii mu bëgg ngeen bañ ko koo yombalal ñu bari tey ba conseil constitutionnel ñëwee ñu bari naan di tàcc conseil constitutionnel constitutionnel defuf ñu fi cottu ndeyam dañoo defal Macky Sall la mu bëgg la bëgg lañ ko defal ba tey jii may wax ak yéen amul benn sénégalais bu mën a wax jouru élection yi jour tel la te élection yi waroon na nekk dimanche bii nii la vingt cinq bi ba tey jii amul kenn ku mën a wax ban jour la élection yi lan moo ko waral kon kay conseil constitutionnel la Macky Sall bëggoon defal nag ko defal nag ko ay caaxaan baaxul bàyyi leen ay tappale conseil conditionnel ay doomu xaram lan nan jàpp bis ñoom nan jàpp bis pouvoir poufoir may na leen ñu jàpp bis ñoom loolu moom mooy dëgg ah pouvoir bi leen may ñoom ñu dàq élection yi pouvoir boobu may na leen ñoom ñu ñu jàpp bis lan moo tax ñu jëlaat ko jox ko Macky Sall ni ko jàppal bis mooy defal nu la neex saa boo ko bëggee defal ko defe ko noonu nan nekk ay nit te bañ a nekk ay fanatique mu te taxaw ci dëgg loolu moom mooy dëgg laneen lu nu waay wax lu dul lool daf ñuy nax waaw laneen lu ñu waay wax lu dul ñu taxaw daf ñuy nax nan jàkkaarloog Macky Sall xamal ko ni ko réew mi moomoo ko loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg de Macky Sall rapport de force la xam Macky Sall taxaw temm ni ko li nga bëgg du am Macky Sall loolu la xam xamul négocier xamul waxtaan yéen ñëpp xam ne Macky Sall boo ko jekkoo mu indi ay bëtu yërmande indi ay doxalinu yërmande mais bu la jekkoo dala dala koy def yéen ñëpp ko xam réew mi ñëpp a ko xam kon nan la demee tey ba yóbbu réew mi tey fii mu toll tey sénégalais yëpp war a jug tey jël seeni responsabilité xam ne mbir mi tollatul ci mbiru ay parti politique ay mbiru leader mbiru citoyen na citoyenneté ah sunu souveraineté la ñuy xeex te loolu parti politique am na ci pas de responsabilité di leader yi am nañ ci pas de responsabilité mais yow citoyen bi yow ban kii nga ci am yow militant bi yow sympathisant bi yow ban taxawaay nga ci war a am sa bu ci amee taxawaay rek yow war nga cee am taxawaay nan bàyyi ay caaxaan te dox ci dëgg nan xam ne Macky Sall ñëwul pour jëlee Sénégalais yi ci jafe-jafe yi Macky Sall dafa ñëw pour nërmeel Sénégal pour indi fi ay jafe-jafe te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët Macky Sall buñ koy xeex. ku dul Macky réew mi képp kun fay xeex muy ab sëriñ koo mën a doon am nan argument yuñ mën a teg yoo xam ne buñ ko tegee ci taabul ji Sénégalais yépp xam ne waxuñu ko pour par par loo war a een la ay caaxaan baaxul bugg ko gisa bëgg bëgg bëgg ko gis ni duma ko gisa fi nekk wala xam ko ni duma ko wax a fi nekk mais li fi nekk ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ko du nitu jàmm du nitu jàmm du nitu jàmm Macky sàll li leen war a xamal ni tey jeexal na ta Sénégalais yi bu ñu jugee nangu seen réew kañ la gëj a génn réew mi kañ la gëj a tukki fu mu jëm ñu dàq ndayam fu mu dem Sénégalais yaa nga taxaw di ko xaar duñ ko may dara kon bu toogee ci biir réew mi Macky sàll jàq na dafa jàq ba pare bu leen a wan ne pare naa taxaw naa maa ngi nii ko wax nangam ak nangam alors amatul waaye amatul bëñ yu mën a lekk dara. waaw bu bëñam yépp fàq ngeen ko bu leen bu ñëm yi nag ba mu defee ña eh, benn sell ci kaw benn sell ci suuf ngeen di xaar mu leen di faagaagal ci benn sellam boobu te tër ngeen ko jël seen pees di wekk benn di wekk benn par benn ba mu des ñaari sell bi ci kaw bi ci suuf bu ngeen sàgganee nag ba mu rey leen ci loolu amu leen fulla jug leen ngeen taxaw jug leen ñu taxaw jug ñu yokk suñu détermination yokk suñu taxawaay te bàyyi manifestation yi ñuy utal bis di yëgandoo di wàccandoo ci mbedd mi di xeex li ñu bëgg loolu moom mooy dëgg ñu bari nag maa ngi leen dégg ñuy woote. fan yi ndeysaan am na ñu may envoyé ay vidéo kër Mboup nan noo vraiment Ababacar Mboup mën leen Ababacar Mboup position yi mu jël da koo yéex a jël. te lii muy wax mooy dëgg yàgg naa xam ne mooy dëgg mais ak ragal moo ko jàpp ab leader du ragal nit ki boo demee ba am idéalu tey jii réew mi li fi nekk dafa war a changer nga jàpp ne boroom xam-xam nga wala nit ñi jàpp ne boroom xam-xam nga nga xalaat say xalaat ba gis ni réew mi kat lii ko téye réew mi fii lañ mën a jaar pour mu dem bul am complexe pour wax ko bul ragal pour wax ko citoyen nga surtout waaye nga gis ngeen seen taxawaay yi ngeen am barki rasulaay bu ngeen ko yokkoon sama classe gi dootu loolu leen dégg ñuy wax bay saaga ba ngeen naan diw de saagaam yi nangam ak nangam sunu saaga yépp dafa am lu ñu metti ci réew mi parce que dañoo am ay mag yoo xam ne ci réew mi bu dee jàng ñoo ñu gën a jàng bu dee xam-xam yéen ñu ëpp xam-xam te yaakaar naa bu dee fit yéen a ñu jiitu ci àdduna gën ñoo xam àdduna yéen yéen a ñu war a ëpp fit kon bu ngeen demee ba seetaan ñu loo xam ne tey ñun ñu ngi koy wax te yéen a ko waroon a wax taxawaay boo xam ne am nañ ko yéen lañ waroon a ñëw taxaw ci yéen ginnaaw amu leen ko dañuy am lu ñu naqari looloo ñuy poussé ci ñuy dem bay saaga di wax yenn yoo xam ne ku ko dégg jéppi ñu ku ko dégg bañ ñu te kenn yarewuñ ko taxawaay bi ngeen am ci réew mi moo baaxul jël leen seen i responsabilité yokku leen seen détermination ngeen taxaw réew mi ñun ñoo ko bokk Macky sàll buñ ko may dara ci réew mi lum ko jaral pour mu taal réew mi nanu ko jaral pour ñu taal moom ba mu jeex takk loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg laneen lu ñu waay wax lu dul lool daf ñuy nax nan yokk suñu taxawaay tey bari nañu fi woote naan ajuma place de Obélix kenn du leen gis caaxaan yooyu ngeen di bàyyi bu ngeen dee taxaw di ay leader tey ay ñoom kër Mbuub yëg ay ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Oustaz Makhtar Sarr yi ay ñoom si Sylla yi yéen ñooñu ñëpp la xeexu réew mi concerné tey bu ngeen taxawoon di ay leader taxaw ci kanamu ndawu Sénégal yi buñ leen jàppee it bu ngeen demee li li ci des ndaw ñu dinañ ko régler barke ar Quraanul Karim kun ci jàpp vingt heures vingt deux heures dina la fekk sa biir kër parce que fexe ngeen li ngeen bëggoon am ngeen ko fexe ngeen ba Sénégal yi génn fexe ngeen ba Sénégal yépp wuy si leen yéen buñ leen jàppee seen jaan wàcc na dem leen ñibbi tabaay yi ñoog li ci des dinañ ko régler billahi buñ leen jàppee vingt heures vingt deux heures ci seen biir kër yi la leen di fekk parce que dinañ jàmmarloog ñoom ci mbedd mi defante kook ñoom ci mbedd meeg seen biir kër yi ba mujj ab ak weñ gu tàng ngeen di doon ci seen loxo yi jël leen seeni responsabilité jug leen ñu taxaw Macky Sall moomu réew mi tey moomu réew mi ëllëg ñi fi taxaw nag naan conseil constitutionnel dañoo xamul Macky Sall conseil constitutionnel defal na ko lam bëgg man gëwuma ci discours maki Sall gii mu génn wax naan leen élection yu jour nangam ak nangam déedéet du ko def gëwuma ko man gëwuma ko waxam ji day bëgg a bari te waxagu fi lu ajum ngooñ waxagu fi tey lu saafara suñuy jafe-jafe liñ bëgg dégg dëgg dëgg ci Macky Sall mu wax ko waxu ko kon lan la ñuy toog di tendeefal lan la ñuy toog di ko di ko bàyyi muy xalaat ay xalaat yoo xam ne baaxul ci ñun lan la ñuy dem bay àgg ak moom foo xam ne léegi mu ngay am jot sax bay mën a ñëw naan day def ay discours ak maa ngi woo RTS ak maa ngi woo ay des médias yu kenn xamul. di tànn ay ah, ah, ah, télé yi mu war a waxee rajo yi mu war a waxee te ngay wax ak sénégalais yi war a woo presse sénégalais bépp tey ñu ñëw teew parce que askanu Sénégal ngay waxal waaw ay caaxaan baaxul jugleen ngeen taxaw jugleen ñu taxaw jugleen ñu yokk suñu détermination Macky Sall li muy fas yéene wut réew mi de yàgg nañ leen koo wax nit la koo xam ni ab baadoolo la mooy gan gu ñëw sa kër rek sukk ci bool bi nga koy teral tax ta xamuta jug te yow miy dagg di ko yow suur nga bu yàgg mënoo continuer nag eh, ni danga koy tegal rek mu toog di lekk parce que du suur ab baadoolo la da ngay seppi loxoom ne ko raxasul te pare ci bool bi ab dof la maki wérul loolu laa ñëwoon nag tey mu nekk benn vidéo bu gàtt ma ne dinaa ko def ci discours Macky Sall bi ne war na koo def tey ak rassemblement bi nga xam ne ñu ngi koy woote suba yéen leaders yi il faut ngeen di taxaw ana ñoom Clédor Sène dee leen taxaw ana ñoom Dàmbo génn leen gis ngeen bu ngeen fexe woon tey convaincre Sénégalais yëpp ban wàcc ci mbedd mi ngeen ànd ak ñoom yéen bu leen jàppee vingt heures laax barke alxuraan vingt deux heures seen biir kër yi la leen di fekk parce que du ngeen génne mbooloo mi ba pare. ay grenade di leen tasaare bu leen ay grenade tasaare it dinañ dugg ci mbedd mi def loo xam ni ña toog ci seen bureau ya yaakaar ne mën nañ leen a toroxal bis bu gaa yi wàccee dugg ci seen biir kër yi buñ leen jàppee vingt heures vingt deux heures ci seen biir kër yi la leen di fekk yokku leen seen taxawaay ñu yokk suñ détermination yokk suñ taxaw temm te xam ne Macky Sall ak ñim àndal moomu ñu réew mi ay ndeena njaay yi yépp ngeen di dégg nag dama bëgg ngeen xam ne réew mi leen mooy Alioune Tine ngeen fi gis Alintine ay 2011 maa ngi dakaar am benn grand boo xam ne ndeysaan moom rek lay diglu jamono jooju mais danaan kii li muy yekk Abdoulaye Wade alintin mii rado daa ngeen ko dégg ah ay érefeeg fu ne la daan toog di def ay discours di wax ci réew mi amul amul démocratie nangam ak nangam tey fii Macky Sall yóbbu réew mi ñu naan ay alintina ngay wër naan ay jàmm ak nangam sàngam demal ci rojo ya nga doon dem di fa dénoncé Ablaye Wade nga dénoncé fa Macky Sall télé français yi nga doon dem tey di fa dénoncé Ablaye Wade tey lu la nga wax ko Ablaye Wade demal nga def ko Macky Sall li Macky Sall di def ci réew mi moo gën a yées li Ablaye Wade doon def ci réew mi moo tax sénégalais yeewu leen yeewu leen. ñi ngeen gis nii yaakaar ne tey réew mi moo leen ñor démb ak bërki démb ñu taxawoon mooy kalaasug ñoom fu malaat gi ak ñoom Fadel Baro tey gi fi taxawoon man naa ni kiligu yaanaamaar googu yëpp ñi ci bokkoon doon ci rey seen bopp ñi ngeen fi gis bariwul ay benn benn ngeen ciy gis fi ne ñu nekk ci xeex bi di rey seen bopp ñi ki des ñëpp ñu ngi ci réew mi te ñoo wax lu tax lu tax lan moo tax parce que xeex ñoru leen jafe-jafey sénégalais ñuruñu leen li may wax père Ousmane Darame mii xam na ko bu baax a baax a baax a baax a baax ah réew mi ñuru leen yàgg ngeen fee taxaw tey naan Abdoulaye Wade nangam nangam mais yéen ñi fi doon xeex Abdoulaye Wade tey fa Abdoulaye Wade yóbbu woon réew mi ablaay Wade yabeel gu mu yeboon sénégalais yi fii Macky Sall àgg ak ñun Abdoulaye Wade musu faa ñemee àgg ak ñun xelam musu koo xalaat waaw xalaatoon naa dem sax pour doomam ñëw wuutu ko mais ki ko xalaatul nag kooku kay gën a yées ki xalaatuta sax dem Ablaye Wade lu ngeen ko mën a waxal loolu lañ doon wax doom gi la fi bëgg a teg Karim la fi bugg a teg nangam nangam kon kooko dem na ba xam ni mënatul mu ngay xool ko man te jàpp na ne ñi fi nekk ñëpp doomam a ci tane mais ki ko fas nag ana ñi ko doon xeex ah maa ngi gis ay Fadel Baro ci rajo yeeg site internet yi ñu ubbi seen gémmiñ yi non da ngeen a yàpp nit ñi barki arxuraan da ngeen a yàpp nit ñi ay benn benn tey nga ciy gis tey te yaanaa maar googu tey waroon a nekk combat boo xam ne combat à vie lay nekk Sénégal lu lu Sénégal yi dund mu nekk loo xam ne maar nañ ci ay jafe-jafe la rek mouvement bi jug mu bañ a nekk mouvement boo xam ne kenn ko moom waaw mais tey ngeen utal ko ñu ko moom utal ko ay ndey dikkeeg utal ko ñu ngeen ko bàyyileeg yu kenn xamul anamu tey la ngeen doon xeex mille mille 2012 tey ba fekk leader yi tey ñuy conférence de euh, euh, de presse le 22 ngeen ñëw saaga seen tey ni leen wàcc leen ñu xeexi xeex ba tàmbali le 22 ca ngoon nga la tàmbali le ci ngoon la xeex ba tàmbali ah! le 22 juin ci ngoon la xeex ba tàmbali barke alxuraan ci ngoon la xeex ba tàmbali ah booba tey maa ngi Medina jóob si mii ngeen di gis ñi daan nekk Malick si avenue Malick si yépp ñi fa daan nekk barke alxuraanul karim semeur yooyu nga xam ne ñu bari buntu empire des enfants bu mer Anta Mbaw mii leen doon toog jóob si mii moo leen doon fay xam naa ci ay nit yu bari ana li ngeen doon xeex kon ndaw ñi buñ jàkkaarloog yéen di leen wax mbelengaan di leen wax yenn musiba yi dañoo am raison parce que bu leen fi bërki démb fekkul mais démb lu bon bon lu nu gàtt gàtt gàtt ay fan démb fekke nañ ko bërki démb nag fekkewuñ ko mais démb moom fekkee nañ ko ñun ak yéen fi nekkoon buy bu nu yàlla mayutoon possibilité waxit fekkee nañ li doon am li ngeen doon wax ñu ngi koy dégg li ngeen doon def ñu ngi koy gis xaj na tey lañu yàlla may possibilité tey ñu mën a wax di ko wax bu nu fi bërki démb fekkul billaahi démb fekke nan ko <coughs> fekke nan démb fekke nan démb <coughs> ngeen jël seen centaine de millions tey di ko def ci xeex bi yéen ab régime bu bon ngeen doon xeex ab gouvernement bu bon ngeen doon xeex wala ay nit ngeen doon xeex ay personne yéen xeexu leen ay fee féexu leen ay fee parce que fee yi ngeen doon xeex tey ba mu jaral leen ngeen dugg ci biir koñ yi biir néeg yi du lokkati nit ñi di leen rassembler di leen jox ay cinquante mille ay cent mille ñuy wàcc ci mbedd mi di ko taal mais fee yooyu tey la gën a yées ci réew mi billahi tey la gën a yées ci réew mi ah nga xam ne 2011 moom Idrissa Seck a ngi ci mbedd mi foo mi dina gis ko billahi foo tourné Gueule Tapée gis Idrissa Seck 2010 2011 yëpp Medina laa ko def xeex yooyu yëpp fa la ma fekk barke alxuraanul karim xeex yooyu yëpp fa la ma fekk 23 juin ci guddi immeuble bi ma nekkoon jàkkaarloog empire des enfants bu maire Anta yàlla mi ñu tiim xam na ne am na journaliste yoo xam ne buñ ma déggee journaliste yu baree baree bari keroog man maa leen dimbali bu toon loolu dañuy dee parce que fi taxaw lañ leen roosé jalub grenade boo xam ne ñun ñi ci biir kër gi sax dañoo am problème barke alxuraan gardien yi doon garder banque bi banque bi takkaloog immeuble bi may wax mook empire des enfants ñoo jàkkaarloo banque CBAO bi gardien bi moo ma ni bu ñuy boo leen dimbaliwul mënuma leen a dugal fii mais comme foofu am na cour te ab immeuble la ma ma ma ma woo gardien bi daawuda tey jamono jooja la sénégalais yi doon xeex tekki seen bakken ba ay ñoom Mamadou Diop ak ah ku nekk dee ci tey tey la gën a yées ci réew mi ana mouvement yi ana syndicaliste yi ana société civile bi ah ku ci nekk tey yaa ngi rag parce que Macky Sall fi bi muy door a toog dafa dem seeti leen tey Fou du wax parce que ki quitté RTS lan la bokk ak Fou ñoo bokk ndey ak baay Fou lu muy liggéey yor ñaari jabar yori doom bëgg a dëkk ci kër yu luxe bëgg say doom di jàng ci ci ci école yu baax yi nga bëgg di dawal oto yu baax bëgg di sol lu baax bëgg ñu lay tudd di ngeen wër di macc kooy wala ngeen wër di mari bon parce que dund bi ngeen bëgg a dund te nangu leen a sonn dund bi ngeen bëgg a dund tey te ñime wuleen koo affronté mais day mujj yóbbe leen ci lii day mujj yóbbe réew mi ci situation yi day mujj yóbbe réew mi tey ci situ ci situation yi mu toll parce que jëlu leen seen ay responsabilité yi ngeen jëloon démb seen taxawaay yi ngeen taxawoon démb taxawu leen ko te ba tey ay seen ngeen fukki at mënu leen fee màgget mënu leen fee màgget yokku leen seen taxawaay yokku leen seen détermination yokku leen seen taxaw temb nanu yokk sunu fulla yokk sunu fayda Macky Sall mënuñu ko fal mu ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda balaa maa dee ngeen di génne ay vidéo yu Macky Sall doon wax ay 2011 ak ay 2009 ak ay 2012 di ko wax tey jii ni nangam man Macky Sall du ma ko nangu Ablaye wadd bu defee nangam man Macky Sall du ma ko nangu man Macky Sall euh, premier chef de parti per nangam nangam vidéo yooyu ngeen ñu koy tegal te yéen ñu koy teg ñëpp ay leader ngeen ay chef de parti ngeen yéen a ñàkk coq yéen a bon yéen Macky Sall moo leen gën a nekk góor. bu ngeen demee bay jël ay vidéo am ay vidéo am balaa ngeen koo teg ci kanamu gis ngeen ko war a tege la mu doon wax ngeen di ko wax la mu doon def ngeen di ko def ba dem ci gis bi ni kii moo fi waxoon lii lii lii lii moo ko fi waxoon bu dee dem ngeen ci yoon génne waxam ni lii moo ko fi wax mais pas jël ko di ko posté ci Facebook yeeg seen miir Facebook yeeg seen miir Twitter yeeg Instagram yeeg fu na ngeen posté ko fa tey di ko bindaat ay wax Macky Sall ay waxam yu bindoon ak yooyu da ngeen koy jël def ko ci seen téléphone yi la mu doon wax ngeen di ko wax la mu doon def ngeen di ko def ban jàkkaarloo procureur xamal Sénégalais yépp tappale tey ana maître Moussa Diop Sénégal tamit moo war a bàyyi tey. bu ngeen jugee tey nekk fi benn DG wala nekk fi benn ministre wala nekk benn directeur rek ni damaa bëgg a yor réew mi yow Moussa jóob tey jàpp gii ñu la jàpp rek xamal na Sénégalais yi ni yow bu la bu yàlla dimbali woon te jaaroo ci kaso bii ñu jox la réew mi nga sànk ñu loolooy dëgg Moussa jóob ban cadre ngeen gis ban borom xam-xam kenn ngeen kan ngeen gis tey bin jàppee maître Moussa jóob ba léegi mu nekk ci tedd plateau yi di eh, di di défendre eh, idéologie am programme am kan kenn kon kii. maa ngi ñaan Macky Sall maa ngi wax Macky Sall na ko bàyyi ak détenu politique yëpp mais maître Moussa Diop mi it ku ko joxoon réew mi sànq ñu loolu moom mooy dëgg ay caaxaan baaxul tamit mu ngi fi woon di wuti parrainage ni daa bëgg a yor réew mi moom it ban ko jàppee ba léegi daanaka du ay benn benn nit ngay dégg ñuy wax ci moom maître Moussa Diop bàyyi leen ay mer ngemb tamit yii ngeen di def bàyyi leen ko te bu bëgg a yor réew mi. na la fekk nga am capacité yorum réew am xam-xam bi am élégance bi am patriotisme bi dafa am solo ay caaxaan baaxul ay tappale baaxul nax sa bopp baaxul ay nax sa bopp yi ngeen di nax seen bopp di ko jéem a nax askan wi baaxul mënu leen a yor réew mi waaw am réew pour mu yomb ci yow dëgg boo amul compétence sax na population bi bëgg la yow nga bëgg leen solidarité bu ndaw boo amee rek loo ñàkk compétence ñàkk compétence dina la dimbali mais di nga satisfaire askan wi parce que am nga yërmande sa digganteeg askan wi ba askan wi xam ni yow président bu am yërmande nga malgré ñu ngi gis say faay xam ne lii say faay la lii mënoo ko lii mënoo ko mais am nga seen yërmande te doo leen fen ta woo sàcc seen alal ay caaxaan baaxul li ngeen di def ngeen di bàyyi ànd ak patriotisme taxaw temm bëgg sénégalais yi comme ni leen sénégalais yi bëggee bari na ngeen ñi leen di voteel ñëpp dañ leen a xam dañoo xam seeni mbokk dañoo xam seen mbokki jabar dañoo xam sax yan école ngeen jàng ci yan environ ngeen yaroo kon yéen kenn waru leen a ëpp patriotisme kenn waru leen a ëpp yërmande ci askan wi kon bu ngeen demee ba am nu ngeen mel nag am na baneen yoon bu ngeen bëgg am na laneen lu ngeen bëgg ci askan wi am na la ngeen lu ngeen yéene réew mi lu dul jàmm ak jàmme askan wi ay tappale baaxul ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp nag di leen wax ñu partagé ko mu yaatu sénégalais yokku seen taxawaay suba ñu fa yéenee wàcc ci mbedd mi jël seeni responsabilité te xam ne leader yi leen daan taxawu 2011 2012 2009 ak di leen demal ci euh, euh, plateau euh, tubaab yi di leen waxal di leen booleel Ablaye Wade nguuru Macky Sall gi Ablaye Macky Sall di leen a xoqatal ñii mu jënd leen loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg ay tappale nag baaxul bàyyi leen ay tappale te dox ci dëgg ngeen jug taxaw temb yéen leader yi jug leen tey ku ci mel ne Assane Diouf gii rek bi mu jugee Amérique tey am na taxawaay bu mu doon am tey baal bi yépp tey lu xew Assane Diouf mën na leen a mobiliser mais tamit moom attan na génn sax defal ma vidéo moom day xeex te xamul li muy xeex lan la looloy dëgg Assane Diouf li muy xeex billaahi xamu ko mu ngi xeex nag senegal mais li muy xeex xamu ko de booy xeex nag xam li ngay xeex dafa am solo ñi nga ni ñoom ngay xeexal nga xam seen bëgg-bëgg it dafa am solo Assane xamul bëgg-bëgg sénégalais yi te dese naa xamit li muy xeex jàmbar dëgg nga ci xeex bi malgré bi nga nekkee ka Amérique saaga yeeg yooyu yëpp pour ñu. Karim mi dama bëgg nga xam ni sénégalais yi fas yéene wuñ koo jox réew mi kon frère grand Assane Diouf. am na taxawaay boo doon am nii yàlla mi ñu tiim xam na ko tey komba bi fii mu taxaw. banlieue bi yépp barke arxuraanul karim Assane Diouf mën nga leen a rassembler doomu pikin nga doomu Géejawaay nga doomu banlieue nga mën naa ne doomu Midina nga dangaa bokk ci Sénégal gépp doomu Bawal nga nit nag bu la yàlla defee mag def la jiit nga am combat boo xam ne tey nga koo porté woon amoon ci solo tolop ña nga porté ko war ngaa xam seen bëgg-bëgg ña tey nga porté combat bi tey war ngay xool fa ñuy xool sénégalais yu baree bari bari fi mu ne ànduñook ak yow parce que ni nga àndeek bugaan gay te sénégalais yi ànduñoo ak bugaan loolu Assane damaa bëgg mu dugg ci sa bopp ni nga kiiyee waa PDS yi loo wax papa Ablaye Wade dama bëgg nga xam ne Ablaye Wade sénégalais yu baree bari fi mu ne buñ ko bëggoon dañ koo far bañ ndax li mu suuxat ci réew mi tey fekke ko ci réew mi mu am ci réew mi te gisoo ko ci mu yëy yàbbi fi ak parti bi mu fi bàyyi ñu naan parti démocrate senegal nga gis seen nit yi fi nekk tey yi ñuy def ci réew mi Ablaye Wade nag kenn teewu la koo bëgg Ablaye Wade kenn teewu laa doon mu nekk sa baay Ablaye Wade kenn teewu laa doon mu nekk sa maam mais nit booy xeex ñi tax ngay xeex war ngaa xam tey lañu bëgg sa doom jooju tey maam Cheikh tey boo ko ne woon Karim mun la Karim duma ko jox réew mi boo ko ne woon Ablaye Wade mun la bu nekkaatoon jeune it duma ko jox réew mi parce que ndegam bi muy mag la yàq réew mi ku ko jox bi mi jeune réew ma pëccëxoo ñëwaatal ñi ngay saaga ni ay doomu dëkk beeg yooyu yëpp amul sens xale yi yàlla def na yaa leen mag ñii yaa leen mën a jur mais xale yu bari na nga def sa xel ni ñoo la ëpp xam-xam ñoo la gën a jàng ñoo la gën a bëgg réew mi ay jeunes rek ngay gis ñuy dee sa classe ji quarante ans quarante cinq ans ba cinquante ans fii gisagoo leen ñu leen di dóor fii ay bal ñuy wàcc asan xale yi rek ngay gis ñu dee kon kenn gënu leen a bëgg réew mi man nag sama fereer nga li tax ma waxeeg yow nii ñu ñi ma yàgg a seetaan barke arxuraan jamono ji ngay nekk prison am na benn waay dama ko gisatul sax kun daan wax ni nga ëm seen ñi ma yàgg a topp dinañ ko xam ni nga ëm seen lañ ko daan wax daan na def ay live ay vidéo daal yaakaar naa sax ci affaire rab yi xawma daal kooku dama ko gisatul fenn ay jamono xaj na boo seetaanee sama live bi di nga xam li ma la wax man yàgg naa koo envoyé wari jamono bi ngay nekk ci prison bi man mii te xam na ma bu baax a baax yàgg naa seetaan samay vidéo yàgg naa def ay live it Facebook man may dugg ci live am Ousmane Ba bu tuuti dëkk parcelle nekk Norvège moom xam na ma bu baax a baax yàgg naa dugg ci ay laay fam ñu lay soutenir man duma gan duma ci gan de duma ci gan xeex bii bi tàmbalee ci réseaux sociaux yi ñu taxaw Mark bekk yaatal ko tey ban man cee live di wax suñuy soxla barke alxuraan li may wax Père Ousmane Darame mii xam na ko lu baree bari lu fi xew man naa koo expliquer lu bari lu fi xew laa wax mën naa koo cinq ans cinq yii deux mille dix neuf ba léegi lu bari lu fi xew mën naa koo expliquer mën naa leen a tuddal ay liveur yoo xam ne da ngeen leen di fàtte woon ngeen seen tur mais bu ma nee diw ngeen ni may kii wax na dëgg de ana kooku gaa yi gënoon nañ fee sakkan. gënoon nañ fee sakkan mais dañoo dem ba xeex bi ay parparloo di di ko yàq ay mafia di ko yàq sama yëfi bopp di ko yàq kenn ku ci nekk bëgg nga def nga bëgg a nekk héros te kenn ku ci nekk sénégalais yi mënuñoo parparloo kii kii déedéet ànd nan ànd ñu nekk benn loolu moom mooy sunu doole ñu ànd tey am na ànd bun àndoon boo xam ne tey bu fekkoon tey nan ko ànde woon activiste yi jëmbat ko ñi nekk Amérique nekk Canada nekk France gépp tey lan doon woote tey ñun ñëpp ñun nekk malgré tey bëggante wun sax mais sénégalais yi ñuy woo pour ñu ñëw ñun nan fexe tey jii nii maanaam ba wan leen ni ñun ak yéen ñoo far malgere ñun ci suñu biir ànduñu ku ci jekk sa morom ray ko bari na ci mais mënuñoo toog ñun di reyante ci suñu biir ba pare di nekk ci laay fi bëgg sénégalais yi mbooloo xeex-xeex bi mënta nekk combat bi dafa dem ba ay business ak lu ne dugg ci ñii seen liggéey leen bëgg leen bëgg di wane seen business leen bëgg di dox moo tax foo leen gis chaque jour yooyu nan ko bàyyi nan ko bàyyi am na ñu fi nekk di def yoo xam ne tey am na sénégalais yu nekk ci komba bi di live chaque jour bu dee kër ñoo leen dàq kër bu dee oto ñoo leen dàq oto bu dee jabar ñoo leen dàq jabar bu dee doom ñoo leen dàq doom te du ngeen gis ñu wane ko mukk ci àdduna nan bàyyi yenn caaxaan yi nan bàyyi yenn tappale yi bari na ci liveur yu nekk fii di kii amuñu situation bu baax fii ñu nekk rek lan am situation bu baax moo xam farance moo xam Brésil moo xam Amérique moo xam Canada moo xam fu mën a nekk fan nekk noon rek lan am situation bu baax bis buñ fa jugee dem Sénégal torox ay caaxaan baaxul nan nawloo sénégalais yi nan nawloo sunu sunu tonton yeeg sunu yaay yeeg sunu mag yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen i jarbaat ñàkk ci seen doom sunu moroom yi nga xam ne ñàkk nañ ci seeni tànk ñii ñu ñàkk ci loxo ñii ñu ñàkk ci bët te lii lépp ma lim am na ci xeex bi réew mi moo toll foo xam ne ñun il faut que tamit ñu wax sunu bopp dëgg bu fekkee kenn ñemewun ba di ñu wax dëgg nan wax sunu bopp dëgg xeex bi lu bari ñun laay vër yi dañ ko yàq kenn ku ci nekk naan man a man a ay maa ko fi waxoon lii nangam ak nangam déedéet kon yow loolu nga bëggoon mais bëggoo wax li nga xam ne sénégalais yëpp bokk nañ ko xam dangaa bëgg di indi loo xam ne kenn xamu ko ndax li ngay indi te kenn xamu ko amal am na njariñ ci xeex bi mais li ñëpp xam muy courant bu seer bi ceeb bu seer bi fawe gi ñu Macky Sall di fawe nan ci taxaw ba sénégalais yi xam ne lii nii ñu nekk nii di ko dund nii ba jàpp ni dëgg la nan taxaw ci loolu xamal ni leen lii du dëgg laneen luy ñëw ñu mën a xam ne kon ñii nag dañuy fawee mais lu bari lu ñuy xamal sénégalais yi information yu bari yu ñuy indi amalu leen njariñ te fan yi ñu nekk ci ay jamonoy coow manifestant laaj leen ñu nekk Sénégal lépp la lañu yokkaat lépp lan yokkaat ceeb ak diwlin lépp lan yokkaat ci fan yi semaine bii rek ñu génn lépp yokkaat nan ko lan moo ko waral fowe gu ni fowe alalu réew mi di xamal sénégalais yi ni saa bu ngeen dee taxaw di fees ci mbedd mi di fa bari grenade du tàkk groupe groupe yu ndaw ndawaan yi ngeen di gis grenade yi di tàkk te saa bu grenade dafa seer benn grenade soixante mille chaque manifestant ñaata grenade ay tàkk kon buñ ko taalee kay il faut que ñu yokkaat ceeb beeg diw gi mën a sàcc alalu réew mi dem euh, euh, ni dañuy jënd ay grenade ah génne un milliard ni grenade ah jël quatre cent millions yi jënd koy grenade ah ah sept cent millions yëpp ñu dóor ko ci seen poos ah ay caaxaan baaxul nañ jug taxaw xam ni xeex bi ñun ñoo ñun ñoo mën a fexe tey ba Sénégal yi génn ñun ñoo mën a am benn taxawaay pa nekk fi tey di fii kun fii jàppale tey di porter sa projet tey na fekk projet boobu tey ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp ba nga xam ne tey koo ko wax tey mu yomb a dégg mais looy ñëw di ko forcer nit ki rek du lu neex ñu ngi leen jaajëfal yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di wax ñu gën a yokk suñu taxawaay Macky Sall nag kuy xaar mu wax lu la neex man bokkuma ca ñooña parce que Macky Sall warul lu ñu neex. warul lu ñu neex doxul ci suñuy bëgg-bëgg kon ñun nan fexe ba xam lu ñu bëgg discours bi ku ko mënta ñàkk déglu boo koy déglu dégloo ko sa buntu kër te na ngeen fàq ay yat toog di ko déglu bu waxee loo xam ne jàpp ngeen ni lii mënta nekk ngeen wàcc ci mbedd mi Macky Sall lañ ci réew mi demul fenn bun góor góorgóorloo un million de personne bu wàccoon ci mbedd mi tey ak suba Macky Sall dañ koy takk ba mu ne kodd parce que amatul majorité ci ci réew mi fi mu ne APR dafa xar ñaar ay Thérèse Faye ñi mel ni moom kenn mënta wax ban jàppale Amadou Ba nee nan duñ ko jàppale kon ñoom ñaar lan fi ne ñun nag nan xam li ñu bëgg xam suñ taxawaay maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen wax dem leen ci sama compte TikTok Boy Malika TV ngeen abonné fa bu ko defee doomu xaram yi ma mën di leen teg nii ngeen di leen gis xam ne tey ci diw mii laay wax ñu jàmbal koo jàmbala jàmbal ba mu xam ne alalu réew mi du pour sàcc alalu réew mi tey du pour sa njaboot bu dee sëriñ nga ñu xamal na tey bu dee sëtub sëriñ Tuubaa nga ñu xamal ni la nekkutoon ci caaxaan bu dee sëtu maam Limaamu Laay nga ñu taf la fii ñëpp xam ne yow la ñuy waxal ñu xamal la maam Limaamu nekkutoon ciy caaxaan Baye Seydi Thiaw nekkutoon ciy caaxaan maam Raan nekkutoon ci caaxaan sëñ Ablaay kenn nekku ci woon ci caaxaan bu dee tiijaan nga ñu ñëw xamal na tey waxuma la Seydi Xaaji Malik mais almaktum mi fi jóge bu yàggul tan koy jooyto noppeegul kenn mësu koo xam ci tappale jug leen ñu taxaw ñu waxante dëgg réew mi li ko yàq tey ñun lii ay ay nit ko def mais lii ñun la ñoo taxaw di ko seetaan ñu koy def tan man koo faj lii ay yat man koo faj lii aw ay wax man koo faj ñu taxaw ne duñ ci wax dun fàq yat moo yi bu réew mu fii kon dem nañ ba xam ne nag li fi nekk ay wax a koy faj wax ju ñaaw koy faj ak yat yu saf sàpp ànd ki dëgg a koy faj nan jug ku mu mën a doon bu fekkee dañoo war a wax ba tudd sa dëjëw nday dañ koy def kum mu mën a doon bu fexee dañoo war a wax ba jël aw yat gàll ko ndey sa loos yi dañ koy def ñu ngi ñuy ñëpp di leen ziar di leen wax dem leen sama compte TikTok booy Malika TV ngeen abonné fa ñuy partager vidéo yi nag mu yaatu wasalaam